xibaar yi fii ci leeral SN aboneel te cliquer ci poste notification yi xaar suñuy vidéo jërëjëf leeral SN bokkente not daleen ak jàmm ci xibaar bi nga xamante ni mooy waa ONCAV bi mu féetee fi nga xamante ni mooy diwaanu Kolda bi ñu xëy tey baaxee ñi nga xamante ni ñooy ASC yu féetee foofee noonu ñu ngi leen di xamal ne daal bépp ASC boo xamante ni daal ñëw nga sa stade boobee noonu dañ fay tere li nga xamante ni mooy wëy yi nga xamante ni daal day niru ab politique. waaye nag loolee bu ko waxee daal day mel ni ko ne daal mooy wëy yi nga xamante ni moo xew jamono ji te booy sonk yi di ko wëy si stade yi muy sonko namm nañu la. xëy na nag wëy yooyee noo ñoo tax ñuy wax waaye ñoom daal précisé wuñ benn wëy waaye nee ñu daal benn wëy boo xamante ni day day politique soxlawuñ ko si ay stade yooyu ne bépp ASC boo xamante ni sa supporter ñëw nañ fa rek di ko fa wëy dinañ la alamande cent mille ba cent cinquante mille waaye bu fekkee ne da ngaa ñëwaat sa fan di ko woyaat encore nag dinañ la maanaam seppi si li nga xamante ni moo di seen euh, société boobee noonu di ONCAV di xibaar boo xamante ni nag waa ONCAV bu féetee fi nga xamante ni ñooy diwaanu Kolda ñoo ko daal di baaxe tey ñi nga xamante ni ñooy seen ay see yooyu noonu.